الله أكبر بسم الله mooy fekk sa bopp ci lépp loo xamante ni day yàq koor maanaam lépp luy yàq koor rek yow da nga koy daal di mujj xam naa incha allah après dinañ ci jéem a indi yenn bu soobee yàlla ku ñu ko waxtu bi maye. loolu kon mooy ñaari farata yi ci koor nga xam ne yu gàtt la yu yomb a jàpp waaye léegi bu ñëwee ci sunna yi nga xamante si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko indi doole ko ci bokk na ci moy téla ndog téla ndog nak waxu ñu waxuñu doon ab séeréer rek té wala nga sant ndaw rek ñu ni gis jatt bi solo rek nga jël sa ki lek de déedéet waye sa bu jatt bi soyé ba nga tek ci ab diir tuuti rek boobu lëndam rek man nga daal di daal di daal di muus dog nak lay wax dog koor waye mo gënoon ndog ndax dañuy bañ nga ne fa di ndog di lu nekk ko lek waxtu ci julli jot na tax xam nga ne julli mo ëpp doole lépp lépp lépp lu waay di def القرآن nee na xaafisu ala salawaati wa salaatul wusta

daal di fay jaar yi nelaw te julli woo suba loolu itam nañ ko daal di moytu ndax julli moom koor fi la ko fekk waaye fi la koy bàyyi ndax moo gën a jege doomu aadama bi kon bu xasee jant jant bi xaw a sa tuuti rek yaakaar naa jamono ji bu fekkee ñu ngi julli vingt neuf diggante lu ko jàpp diggante euh, vingt quatre vingt cinq rek mu des naa lekk tàndarma naan ndox yu mel noonu julli soo jullee sa ba noppi nag nga def séeréer mën a lekk ba dal beneen sunna xëdd moom suñ demee ba maanaam euh, minuit jot rek baax na foofu mënees naa xëdd waaye nag muy gënee ci buñ demee bay waale salaatu asalaatu xayru minan nawm fi ko noddkat bu fekkee diggante bi ngay bàyyee ak asalaatu xayru minan nawm do doxal nga fa lu mel ni dix minutes baax na am na ñoo xam ne dañuy toog di lekk di lekk rek naan suñ jàkk ji noddugul wala jàkk ji laay xaar wala jàkk ji yooyu yëpp mën mat naa bàyyi yow daal a tuuti ba gàllax ko ba ñu daal di waaye soo dee lekk ba ba salaatu romb rek yoo xam ne gisoo moom da koy fay romb na la kon loolu itam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñetteelu sunna bi tam moo ci mudd mooy li ñuy wax fekk sa làmmiñ ci lu amul njariñ wonk bu mat a bàyyi xel la te loolu mooy ëpp tuyaaba xam nga muy koor ak budul koor yépp dañ laa tere woon sa làmmiñ mi nga ciy wax lu ñaaw lu mel ni jëw نحو من ولا يعتب بعضكم بعدا أي يحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يا الله بولين دي جون دي كين سي ين بوكول من بو ليك مالوم غا خامي جو اك ليك سا مالوم ньо ياو يم واي دا ملني موم لن گنا موم لن نيت لن كو داف ليك داف فا نان نعم. في نان جالو بون بون بون بون بون بن جو بو واخ سي دوما ادم لو نياو مو گنا بون فان ويلو نياو تا خولا نيون نيون نين مل غا خامي نيون دا نكا كو داف لولو نيو ميدالا تا نيغي دكي دي جوونتي سوني بير waaye loolu nag rawatina weeru koor loolu mu jël na nga def ko ci koor moom mu gën a tee bon mais koor moom dañoo wax nga bàyyi bon yooyu ay jëw ak ay ay ay fen ak ay ay ay rambaale yooyu mais dañ a boole wax ju amul njëriñ sax bu ca dugg maanaam bu dem ci réseaux sociaux yi di werante ay politique ak ay kii ak di waxtaan ak yooyu noonu ndax xam nga léegi sëñ Moussa ñaari mbedd amoon dafa amoon benn mbedd boo xamante ni si bu njëkk dana laa wax naa la del toog sa kër bul di génn ci mbedd ñu la fay gis dañ lay yeb wala dañ lay dépassé léegi nag ñu góorgóorlu ñu ci bëri si ñun wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu léegi ñi yor nañ ay njaboot ñii dañuy xëy di liggéey yooyu tubaab bi nag xëy na pour yàqal na suñu suñu diine suñu yooyu mu indi ñu nag beneen mbedd vertical yow léegi sa biir ne ngay toog waaye yaa ngi tam mbedd ma ni fanga fanga la ngir lan yaa ngi ci diggante Facebook ak WhatsApp Facebook rek doy na mbedd ndax da ngay dugg fii dugg ci waxi jàmbur lire commentaire yi commentaire la duggaat ci beneen commentaire commentaire waate duggaat ci beneen commentaire commentaire waate di wax lu la wóor ak lu la wóorul di sos di kii te yooyu yëpp ab jullit daf ko waral daal di daal di kon fekk sa làmmiñ ci lépp loo xamante ni amal njariñ ay waxi nen la rek loolu dañ ko fonk ñu ko ci koor koor daal liñ bëggoon ci làmmiñ bi mooy di zikkar wax laa ilaha illallah di wax astaghfirullah yu mel noonu wala boog sa liggéey nga am ko ci waxtaan liggéey wala leneen lu yooyu am njariñ kon loolu mooy ñetteelu ñetteelu sunna bi xam naa balaa ma koy fàtte mën naa ñëw ci yi nga xamante ni dañuy yàqu koor muftiraa yi ma la waxoon ne moytu ko ñu yàq sa koor boo leen dee lim bari nañ waaye mën nga cee rek tàmbalee lu mel ni lekk saa bu nit ki lekkee lépp loo xamante ni si maanaam ci misaal dafa nekk lu solide loo xamante ni si da mën nga koo jàpp téye ko lu mel ni mburu wala beñe wala xeej yooyu noonu wala sax lu ñuy lekk waaye lu mel ni per wala mu nekk xeer wala yooyu yëpp su fekkee ni doomu aadama bi da koo def ba àgg ci biir mbaaxam rek yàq na ko waram mais su yemoon ci poudre mu yàbbuwaat ko koor bi su fekkee nag lu lu luy la lu mel ne ndox wala soow wala élément liquide yi daal yooyu moom su xasee ba àgg ci pour jaamu Adama rek jeex na koor ga yàpp na na xam ne bis boobu na ko àggale mais daf daf koy daf koy fay. bokk na ci li yàq koor itam moom sax ma waroon a jiite mooy yéene ji ma la wax léegi nga sànni ko mooy nit jékki-jékki daa ne ah man sax maa wóoroon waaye léegi wóoratuma bu fekkee moo ko def ci tayeer sax dañ koy teg kafaara kafaara di leen wax lan la naa incha allah kon moom Euh, euh, yàqu na moom misaal yi yéeneem boobu waaye bokk na jéem ñi ci yi nga xamante si kooram yàqu na mooy ñaari mu kallaf yu sëy maanaam yu def rapport sexuel ci bëccëgu weeru koor guddi gi nag bokku ji guddi gi koor xëy na leneen la waaye sa koor daanaka koor yi dina baax waaye ci bëccëg koor ñaari mu kallaf yu ko di def nañ xam ne ñoom ñaar ñëpp dañuy fay ba noppi dañuy dañ leen di teg alamaan kafaara seen seen seen koor yàqu na waaye li ñuy wax man sa koor yàqu na mooy li génnee ci góor waaye nag bu fekkee ni nag tayu ko comme da doon nelaw rek ci biir bëccëgu koor mu gént di mel ni koy jaxasoo jigéen ba loolu dal ko kooku moom kooram yàquwul day dem sangu faral rek àggale kooram loolu ñu koy laaj ay jamono ci ci ci jamono bëri na lool. am na itam lu ñuy wax masiw masiw loolu tamit bokkut ak man yu ba léegi ndax masiw xam naa nañu jéggal ndax yenn temps yi booy jàngale foofu li ngay jàngale muy leer surtout bu fekkee ay gone koy seetaan ndax. njàngale moom yéen yéen tamit nee na ay teggin baax na waaye nag soo bëggee jaar ci digg bi da ngay jaar ci digg bi mu leer man masiw mooy loo xam ne ndox la moo xam te si du du dëgër maanaam du far waaye day woyof rek te di gént doomu aadama bu fekkee day xalaat lu mu war a xalaat wala muy xool image yoo xamante ni si image yu bon la wala muy jaxasoo jigéen di ko làmbatu wala yu mel noonu ba zakaram bi ko yàlla jox cër bi ko yàlla jox daal di jóg bu jógee rek am na ndox ma ciy génn loolu moom njàpp rek lay yàq njàpp rek lay waral mais du waral sangu farata xam naa bu ñu yàlla may yeneen jataay jàngale diine dee ci ñëw mais du yàq kooku du kooku nag su fekkee ni maanaam doomu aadama yi moo moo dëgg xam na ci boppam ni moom su xoolee lii loolu dina ko dal ba noppi mu dem dëgër bopp di xool bu génnee man yooyu xam ni ko waram yàqu la waaye bala xam xam ne su fekkee nag moom xamoon na ni naka jekk bu xoolee yooyu loolu ko dal dëgër na tey nag mu jum ba loolu daal ko sax nee na garaaw da ngay raxas rek waaye kooram mën naa daal di wëy waaye bokk na itam ci yàq koor wàcc wàcc vomissement wàcc bu fekkee ni nag yow yaa ko tey wàcc loolu la ñuy wax day yàq koor comme yow yaa luudu sa bopp jël sa loxo dugal ci sa biir gémmiñ daal di wàcc mais bu fekkee tayal ko comme ça xel day teey wala dangaa am loo xeeti loo xamante ni si daf la allergie sa xel teey ji wala kii nga wàcc su fekkee lekkaatoo ci dara rek koor gi baax na mais su fekkee yaa ci lekkaat dara moom dañu xool bu fekkee tayoo ko danaa la fayal bis rek mais su fekkee yaa ko tey lekk nag ñu doon ñu teg la kafaara loolu mën naa yóbbaale ba tey li ñu wax gàll gàll itam mooy yenn saa bu fekkee biir bi dafa bëri li fees yaa ngi mbàq gi génnaat génnaat lekk gi nga delloo ko yooyu yëpp soo ko lekkaatee day yàq sa bari nañu koy mbokk yi yàqul koor lu mu bëri bëri bëri bëri bëri doonte da nga ko génn ba mu bëri nga delloowaat si na ñoo xam bu ñu wooree dañuy somb lool di tiflit di tiflit rek te loolu nag nekkul lu nga ne si moo civilisé te moo gënal sax l'islam kon nag ci daal di bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye bokk na itam ci nga xamante si dañuy yàq koor euh, mooy maanaam soccoo ci misaal socc boo xamante si dafa tooy am lu ci rëcc daal ci dem ci sa gémmi loolu day loolu day yàq koor kon moo tax nañ ci bàyyi xel bu baax dañoo bëgg ku woor ngay soccoo socc bu wow nga xamante ni dara du dara du ci jàll ci sa gémmi waaye su jàll ci sa gémmi rek day yàq koor ni ki doon itam soo dee jàpp nga ni ko bu metti ba mu jàll day yàq sa koor wala ngay sarax ni saraxndiku di def sa bakkan mu metti day yàq sa koor moo tax ñu bëgg boo wooree ngay def salade bu ndànk rek booy galaxte itam nga galaxte bu ndànk balaa muy balaa muy rëcc ba ci noonu booy sangu itam nga moytu bu dee chasse la nga bañ mu mu tiim la. waaye bokk na itam ci nga xamante ni si day day day day wala jigéen gis deret day yàq koor itam maanaam jigéen yi nga xam ne dafa dem ci bëccëg koor xool boppam gis deret ku waraw yàqu na moom ne day continuer di lekk waaye bu bokkut ak ci misaal bi nga xam dafa jékki-jékki rek naan te tayu ko daal di juum kooku noonu danaa ko àggalee sa koor bu weer wi jeexee nga fay benn mais bu dee jigéen gi nga xamante ni si euh, dafa jékki-jékki danaa ko continuer nga lekk nga naan waaye nag nga nëbb ko ba bul yàqal ne nañ ñu kon xam naa ni sëñ Moussa yooyu moom mënees na ko cee daal di tënk mais am na yoo xamante ni si nag moom yàqul koor mais ko comme ngay borosu ci bëccëgu wala ay cuuraay ndax cuuraay yi fi ne dafa mën a yëngal raye sa nit ki mu koy xeeñtu mën na ko yóbbu ci bànneex ba mu def lu mu war a def ci jabaram tal boobaa da koy waral kafaara waaye itam mus cin mooy di togg bëgg a ñam xamoon na sax na suukar wala sax na faram nga mus cin bi daal di yàbbiwaat loolu tam yàqul ko waaye nag sib nañ ko dañ ndax wóorul wala ngay lekkal xale xale di lekk lu dëgër nga yéeral ko ko ba mu nooy nga saxal ko ko yooyu itam yëpp dañ koo dañ koo dañ koo sib waaye am na yoo xam ne si yàqul koor gi yu melni ni yeewuwaale ak janaba ni mako ko waxee ko koo xam dafa yeewu fajar amee janaaba maanaam sëy ak soxna wala mu gënt wala yu mel non ba ba ba ba man ñu tak ci ciëram mu na waa rek daal koy yeewoo ci biir koor bi yaqul ko ram day sang rek wayna sagal na ba julliwul te ku julliwul ni ma ko waxee julli dafa fawal kon bala nit ki di tedd wona julli doo ko tëddaat waaye itam lu melni ni pënd bu bari comme koy liggé ci ay cimenterie wala moy liggé ci boulangerie wala yu mel non pënd bu bari juk dal di koy dugg loolu jéggal na ko ko itam ko ram باش نو ايتام بارفون بارفون يمل نون ييب بارفون ياك الكور كون خمنا نيو نيو نيو نيو نيو نيو باي تي خال بو باخا باخا باخ لي ما واخ ليغي نا داغي امنا يوم بو فيك يو ياكو تاي ديف كو دا نلاي تك كفارا كفارا موي علامان بو خمانتي سي دا نكاي تك وايا ليكاي وادال موي نغا ديف لو خمانتي سي تي بيتي كو كور نكو ديف موي جيو تي بيسي كو كور نكو ديف يا ngir jël xotor may koor xam nga am na décision dañu fonk leen woor lu melni ay kalso radja bak ay manam achuba moy tam xarit ak yoy léegi mais bis yooyu soo ci tayee lekk wala nga tay ci naa wala nga tay ci so sëy ak sa soxna dañ naan la rek fayal fayal bis boobu waaye nag doo kafaara waaye itam kafaara day fekk yow li ngay def nga xam ni yow lii dafa day day yàqu koor nga def ko su fekkee xamoo ko comme kuy doog a dugg ci ñu ne daal di jékki-jékki ci bëccëgu koor ñu ne ko xanaa xamoo ni woon ni naan ci dañ koo tere mu ne waa ah kon de xamoo ko woon kon dañ naa ko fayal bis mais nag su ñu xamoon naa ni naka jekk sax dañ naan moom day yàqu koor waaye nag xamoo ni woon day waral kafaara bu boobaa dañu xam ni day fore bu boobaa dañ koy teg dañ koy teg kafaara yi mu def ko euh, ak ak bokk dafa bokk ci charte yi tam ñu bañ koo forcer maanaam ci misaal jigéen bu ñu forcer sëy moom ci bëtu góor kooku du kafaara day fay mais ki sëy moom moom lañ teg daan bi moom la ñuy kafaara kafaara nag bi ci jiitu ñett la woon ci jamono ndax goreel jaam lañ ci tegoon te jooju goreel jaam amatul bii jamono ñaar moo ci des bi ci jiitu mooy dañ lay wax ni la euh, euh, cheikh li mata tabi xëy ni fa siyaamu shahrin mutatabi'ayn mooy dangay boole ñaari weer yoo xam danga koy woor tegale ko ñaari weer yoo xamante ni si soo wooroon par exemple benn weer bi un mois yi ak vingt neuf jours beneen weer bi ci vingt neuvième jour ba nga xam ne suba rek moo la dese nga def ca lu yàq sa koor danga koy tàmbalee à zéro moo tax lu metti la waaye bu fekkee dangaa def kafaara ñaari fan comme dangaa naan ci benn fan tay ko joteeg jigéen tay ko ci beneen fan bi da lay teg ñaari kafaara kafaara yooyu xam nga ñeenti weer lay doon bu boobaa boo fayee bi ñaari weer bi nga doon doog toll doo nga fayal beneen ñaari weer beneen bi ci topp ci kafaara moo ñu gën sax moo gën a lislaam fay taamu sittina miskin nan la mooy 60 miskin maanaam 60 yoo xam ne amuñu luñ dundee nga dajale leen ku ci nekk nga jox ko euh, muy jaar ci xaalis nga jox ko kon loolu mooy alamaan yi nga xamante ni koo xamante ni si dafa dafa dafa dafa dafa te tay ko wala mu xotti war kon xam naa ni yooyu mënees na ko cee daal di daal di daal di tënk incha allah waaye daal ñu xam ni كو دا عندك تي سولا من دا ينت نينا من لم يدع حول الزوج والعمل به فليس لله حاجته في اي يدع طعامه وشرابه ينت بنينا كيف كو خامت دي وورنا دغ دغ خينا خيف مار تو بو غيسن توني وو كوم من عندما وور واي نا مو تي ديل نينا موي خاسكي موي تو ماركي موي تونكي يالا نينا سوخلا بول دا تي كورام بول خيف اك مار رك لول نا يالا تي يالا موسل woor ak ni méttee sëñ Moustapha nga xaw a dee daanaka gis nga tey tàngoor bi nekkee nga pare xool fi ñu lay fayee nga fekkoo fa dara ngir lan yaa dem di xas nit di jëw nit di fenal nit di tooñ nit ci kii kon yooyu nañ ko daal di moytu waaye weer la bu dundal ci jàngum alquran nañ ci bareel jàngum alquran bu baax a baax a baax waaye weer la ngir sax dimbalante ci alal ñi ñi am alal nañuy jox néew bi doole yi di leen jox loolu dañ ko cee sopp lool waaye weer la itam boo xam ne nañ ci dundal suñu ruux ci xam-xam comme lu mel nii def ay jataay xam-xam ci jàngale lu mu néew néew néew koo ci jàngale mu jëriñu si suñu borom dana ci daal di fay xam naa mënees na woon taxama seen mbokk la woon Mouhamad Ka ànd ceeg ci technique bi seen Moustapha Baro di ñaan yàlla suñu borom def tawfeex ci ci ci ci ci chaîne bi lépp loo xamante ni jàng na ko ci yàlla ku ci dégg rek yàlla na nekk tuyaaba bu ñëw ba ci kii quoi te yàlla doon ci tawfeex bu baax a baax a baax. إن لي إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسماء